mbokk yi ne bàyyi xel fu mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk bitim réew tey seen seen bu am solo bi muy le grand secret wolof ñu ngi leen di wax de asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu <coughs> ginnaaw bi ñu sant tey yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jaajëfal mboole mbokk yi bàyyi xel ak fu mën a ne mbokk yi dikkaat nañ ak yéen ci secret bu am solo bu leen indil bi secret allahu xayil xayumu tam tamasun bi secret bi gaaw na ci war wërsëg lool yemu ci waaye nag dafa baax lool ci wàllu kàttan képp koo xam ne da nga koy liggéey da ngay gis ne suñ borom da lay jox kàttan bu baax a baax a baax di benn xawaatim ay masala sul kunti xawaatim bu doy war wala ñuy gën a sori ci secret bi wala ñuy gën a yaatal lay wax yow mi gan ci paas bi bu fekkee ne abonné goo ci seen bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te seen vidéo bi partage mu gën a yaatu ndax mboolem vidéo yi ñu dugal ci seen bi yëpp ay vidéo yi njëriñ la te njëriñ nag moom mu gën a yaatoo rek ci la gën a mbokk yi nga xam ne dañuy bëgg def lu seet wala ñuy bëgg a def lu saxaar dañuy def seet à distance dañuy def tamit listixaar à distance moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew te bëgg kul a defal benn ci ñaari man nga ñu contacter ci numéro yi muy 77 684 28 28 bu dee da ngaa nekk Gambie ak li ko war nga contacter ñu ci numéro Gambie muy tuutu seram 238 1629 238 1629 mbokk yi nga xam ne dañuy teew a garab yi kàttan yi muy garab yu mos xam yi ñu ngi leen di wax ne garab yi disponible na jamono jii ñu wax ak yéen képp koo xam ne yitteel na la dëgg rek mën nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 ñu fàttali leen lu neew rek ci njëriñul garab gi garab gii ñuy wax mos xam dafay yokk kattan bu baax a baax a baax dafay yokk man niw bu baax a baax a baax dafay dundal wala njaan te amul benn ngaañ képp ku si war mën nga ñu contacter ci numéro bi waaw mbokk yi secret bi ni nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo na nga njëkk a bind allahu ayil xayamu tam tamasun fexeel ba bind ko 398 boo noppee nga teg ci xawaatim bi def saxaaju ci digg bi loolu saafara lay doon apart waxtu woo xëyee nag juróom-ñaari fan yi rek koy commencé samedi samedi nga def alhamdulilahi rabbil alamin benn yoon allahu hayl xuyam tam tamasum 398 alxames nga def fatiha ñaari yoon allahuma il xoyom tam tamasun 398 noonu nga koy toppee ba semaine bi jeex noonu nga koy toppee ba semaine bi jeex te santeeg saafara si yaa ngi koy jëfandikoo saafara si li muy àndal mooy parfum bu neex rek waaye lii képp koo xam ne da nga di kattan da nga koy am di nga am wërsëg incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë